jërë ngeen jëf mbokk yi safoo seetaan télévision Sen TV dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu leen di baalu àq di leen bak baal àq ci jullib tabaski gi ñu génn nga xamante ne sax ci la ñuy ni ngir door xibaar yi digg bëccëg gi fële ci Tiwaawan ni ki démb nag amal nañ julli gëkk ko jiite di Serigne Babacar Sy Abdou ci la nga xamante ne moo gënoon fës ci xutba bi bokk na ci jàmm waaye tamit ñi ci daal di dellu ci sunu borom moo gënoon fës ci bu xalif général des Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour moom sax daal di naa woo képp kuy taalibe ngir rek nga daal euh, amal ay ñaan ngir ñu amal euh, li nga xamante ne moom moo di rek wàllu nawet bu mucc ayib Abdoul Aziz Sow Dabakh mu ngi woon foofu ñu teewlu ko ci. ñëpp delluwaat ca boroom ba niki noonu ñu amalay ñaan ci lii la xalif général kullu tijaan di woo fidèles ngir ñu amalab nawet bu mucc ayib. nañ leen dellu ca yàlla. jaamu ko jéggalu ko ñaan ko imaam yeeg sëriñ daara yeeg boroom njaboot yeeg kenn ku ne yow daal war nga mën a beru ak ña nga am. ngeen wàcce nag seen bopp ci kanamu yàlla jonkonu yàlla nag askan wi ñu ñeex leen ci ñu defaraat jikko yi di dox ci intérêt yi soxal ñépp kersa amatul sutura amatul kenn ku ne yaa ngi xotti sa malaanum sutura moroom nañ leen àndandoo bokk dellu gannaaw dañuy wax intérêt général di waxit aar li ñu bokk kon su boobaa nañu leen ci aaraale li réew mi moom te muy sabab yërmande yàlla muy xutba bu bari lool ci jàngale sëriñ Babacar Sy Mansour di ñaan jàmm ci mim réew yàlla dolli jàmm ci réew mi réew mi yépp soxla nañ jàmm ku ko wax nag ak ku ko waxul réew mi daal ñépp soxla nañ jàmm yàlla na fi yàlla dolli jàmm ñaari rakka yi fii ci jumaay xel xuus Serigne Mbaye Sy Abdou moo ko jiite jërëjëf Abdoul Aziz Sow Dabakh ñu daal di desandi ba tey ci wàllub julli gi ni ko démb tam ca Thiès ka nga xamante ne moo di imam Babacar Ndiour daal dinaa yëkkati nag ay kaddu ca di xutbam ba wax na nag li jël jëm ci article 80 bu code pénal bi jàpp na ne nag war a warmaal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di autorité waaye tamit jàpp ne autorité yi tamit duñu yàlla ba tax na nag faw rek ñu daal di jiital la nga xamante ne moom moo di yërmande ci mim réew ñu teewlu ko moom imam Babacar Ndiour ci njàppandalu kii Simon Pierre Cheikh Faya. pétrole gaz gaz pétrole te lii jàmm moo ko gën ndax dañuy wax ne c'est une malédiction musiba la ci réew mais non c'est une don de Dieu du musiba yàllaa ñu ko jox waaye nekk na mbaax su fekkee dañ ko teg ci njub ba pare ragal yàlla teg ci kenn rek lañ yaakaar ni moo ci waroon jëf addu ci ca njëlbeen ba fii te mooy Petrosen anu ko ko ci dégg kenn tudd ko kenn dégg ko lu ko waral mu mel ni seen loxo dañ ko ci seppi lu ko waral xam nga pétrole buggul coow bu ci baree rek bu ci baree réew mi duñu ko jariñoo multinational yii ñooy ñi moom pétrole bi wëlbati ko nag di ñu mosal rek xam nga 16 800 milliards ci 30 ans mais équivaut à milliards at mu nekk mais loolu dañ ko mën a am feneen loolu du mosal waaw loolu ban pourcentage la représenté ñi ko bokkal ban pourcentage lañ ci am loolu boo ko nit ñi xamoon jàmm ba coow li jeex. am Babacar Ndiour ñu daal di desandi ba tey ca la nga xamante ne moom moo di jullib tabaski ji foofu it ci sa ni ki démb ka nga xamante ne moom moo di Idrissa Seck mu nga woon ci jumaa mu sante moom nag njiital parti réew mi la mu wax rek moom moo di ñu ngi fàttaliku bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom la ñu duppee rek maanaam ñi nga xamante ne dañ leen beddi ci feetu ba tabaski gi wàllum solidarité ñu teewlu ko ci njàppandalu Simon Pierre Faye mënuñoo bañ a xalaat ñi nga xam ni euh, seen tabaski daanaka ni mu waroon a mel melu ni moo xam ñi feebar nekk ci lopitaan yi wala ñi nga xam ni euh, yoon daf leen a xañ leen seen liberté wala ñi nga xam ni jafe-jafey àddina pour am xar wala am lu ñu bégalee seen njaboot tënk na leen ba seen tabaski ni mu waroon a mel melu ni di ñaan suñu borom jafe-jafe yooyu nga xam ni yu tar la yu tege ci kaw peuple sénégalais suñu borom teggi ko yombal ko te redressement bi nga xam ni moom la ñuy xaar suñu borom dogal ko ba nga xam ni at yii di ñëw incha allah mën a dàq ren ci wàllu tabaski ba ñëpp mën a feete ñëpp mën a yëg njariñ yi ak xéewal yi Seck ñu daal di dellu si fii ci Ndakaaru daal di dem fa nga xamante ne moom moo di Yoff Layeen foofu it ni ko démb ki nga xamante ne moom moo jiite julli ji di Serigne euh, Libaas Laay moom nag ci euh, xutbaam bokk na ci nag lu mu wax moo di ñu warmaal jigéen waaye itam fàttaliku ñi nga xamante ne ñoo di njëriñ ndax yenn saa yi dañuy jànkonteel ay jafe-jafe yu metti ñu teewlu ko moom Serigne Ba Serigne Libaas Laay maa ngi jokk bakkaar ci képp koo xam ne yaa ngi sànk akku ñaar ñii muy jigéen muy euh, jirim ak jigéen mu ne na ngeen ka daw maa ngi leen ciy jaja maa ngi koy jottali sama boroom képp a koo xam ne andi nga fi akku jigéen ëllëg wala nga indi fi axi jirim di nga ko réccu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo taxaw pour layal leen ñoo jirim yaa ngi dund loo xam ne maara day taali dajeeg ay xeeti tilla yoo xam ne ay jëmmindit lañu yor war ci seen kaw war ci seen alal di ko lekk laata ñuy màgg alal ja jeex na ma wax ne ñooñoo ngi yuuxu fu ne di nga ci gis koo xam ne ba baayam génn àddina bàyyil ne ka lu ne bàyyi ko bàyyi tëxam wala ndijaayam walla fereeram walla ku mu mën a doon mu jël alalam di ko jëfandikoo sànq xale boobu ba xale bi buy màgg dootu fa fekk dara mu nekkoon Serigne Libasse Laye eh, ci xam ngeen ne it ni ki démb ci Masalikul Jinaan eh, daal di nañ ko fay amal li la di julib tabaski bi waaye ki nga xamante ne moo fi teewal xalifa général des Mourides moom nag daal dinaa yëkkati ay kàddu jàpp ne ne nag ni ki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre gi lañ fas yéene rek daloo li la di eh, juma Masalikul Jinaan moom Makiyu Faye jàpp ne ne it de bépp autorité boo xamante ne ci dëkk yi fi nga xamante ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul daal di la invité invité nañ leen euh, ci euh, boobule cérémonie ñu teewlu ko ci njàppandalu nanko ba koy ko sëriñ bi wax leen ko te muy kaddu Cheikh Mouhamadoul Mountakha war fi ñëw ubbi ji jumaa ji le septembre mu doon loo xam ne lii day am ay festivités yu koy jiitu ba ñuy egsi ci àjjuma ji le septembre mu ci am ay gan yu bare bare bare gan bi ci jëkk ki nga xam ne mooy dalal gan yi mooy le président de la république Macky Sall ndax président Macky Sall dina ci invité ay naataangoom ay chef de l'État yoo xam ni ci euh, ndi euh, kàddu sëriñ bi fi nga xam ni sëriñ bi jaaroon na fi bi muy dem ci tukkeem bi te tukki bi tàmbalee fii ci Ndakaaru nga xam ni ñooñu ay ganam la ñuy doon moom personnellement le président de la République joxe na kàddoom mu nekkoon El Hadj Mbakiou Faye xam ngeen itam ni ki euh, démb euh, fële ci Kër Massar amal nañ fa julli ji waaye itam nag la nga xamante ne fësoon na euh, ci kàddu yu ñu yëkkati bokk na ca li nga xamante ne moom moo di rek dérive yi ñu nemmeeku ci réseaux sociaux yi waaye tamit ñàkkum éducation bi ñu nemmeeku ci société sénégalaise gi ba tax na nag yenn comportement la yoo xamante ne dañu ko rekk daal di beddi moo waral nag kile di Moustapha Mbeng nekk maire député it ca Kër Sarr dina addu ci mbir mi ñu lu ko ci njàppandalu sa Diémé président su bëggee nit ñi yaru bëgg dëkk bi set dëkk bi avancé bëgg nit ñi am wér nit ñi ñoo ko war a bëgg njëkk kenn ku nekk commencé ci sa biir kër ak ci sa buntu kër di setal bu ñëpp defee noonu dëkk bi dana set dégg naa fi xeer yu bari nee nañu encombré nañ dëkk bi nangam nangam mais mais tabaski gi moo ko waraloon nit ñi am na loo xam ne doo ko mën ndax doo am sax service d'ordre bu la ko mën a accompagner pour mën la ko defal waaye nag comme tabaski gi jeex na ak jàmm ak salaam mairie bi dina dinañu jël seen i matuwaay ànd ak UCG ñu jéem a nettoyé waat dëkk bi yëpp place publique yëpp ñu nettoyé waat ko mu set ba mu mel ni meloon di ñaan population bi tamit loolu ñoom it ñu jàppale ñu si surtout le marchands yi nga xam ne amuñu place ñu dem a dem wuti place ku amul place nga jënd boo mënul jënd nga loué boo mënul loué ngay waraalu ci biir marché ba wàcc jot nga wàcc loolu mooy yoon te ñu bàyyi yi. li ñu nemmeeku ci tabaski ren ji moom moo di rek xar xaw naa manqué eh, ci eh, mim réew ca Ziguinchor naka noonu tamit gis nañ ne ñu bëri amuñu li nga xamante ne moom moo di eh, xarub tabaski naka noonu it fii ci Ndakaaru loolu la ñu nemmeeku ci yenn bërëb yi ñu doon di jaay xar laata sax tabaski bi ñu bëree bëri seen i ay xar daal di naa jeex moo waral nag ajaratu ay Ñing daal di doxantu ci rond-point Liberté 6 ak yenn gox yi nga xamante ne daal di nañ fa rek teg ab daral ñu teewlu ko ci reportage message bi. jullik tabaski ba ca ëllëg sa dakaar kenn nekku fi tuuti xar lañu fekk ca rond-point 26 yu Parcelles Assainies yi. xaru éleveurs yi ñoo fi des bon ak ay race mooy genre xari yi jógee côté Niger ak euh, Tchadien yi quoi mooy yooyu ñuy wooye azawat yi nga xamante ne ñoom ñooy jënd di élever duñu gaaw a jeex. yu xar yi nga xamante ne souvent moom la ñuy tabaskee quoi. jaaykatu xar bi bàyyeekoo ca Mali. ñeent fukki xar la indi woon fukk ak juróom a ko dese. commerçant bi moom da ngay teg sa marchandise rek ne yàlla mooy jaay mais souvent xam nga bon tabaski moom bu xasee ba ñëw Dakar moom pratiquement ñu bëri dañuy dem tabaski ji fële village quoi mais bu ñibbisee incha allah rabbi am nañu yaakaar daal client yi dañ koy jënd si. jafe-jafe yi ñu jànkoonteel tax nañu.